dernière fois ma dem uy ji bi fa jógee hôpital laa dem directement loolu dem ma ne woon loolu dootul amati mais mu leeroon ma ni su ma ñu jaay ma doole comme niñ ko doon defee ma ne maa ngi dem Ziguinchor ba xam ndax ma jaay doole. ndeysaan damay sene est-ce que jaay nga ñu fi doole mënul ne de kon li mu wane mooy Macky Sall li mu doon def moo ko tey te xam nañu ko ah. ndax bu ko neewoon ni dëkk la ne dina mobiliser armée nationale ah. dina mobiliser unité de sécurité bi mu yem yëpp te bu boobaa dina métti trop ndax xam vous allez résister Vous musiba dina am Vous voyez au moins dina essayé est-ce que SN SN essayé wul de kon la population. waa toute la région comprise les trois départements waa Goudom, waa Bounkiling waa Sédhiou waa Kolda ba Vélingara

c'est waxu publicité qui l'offre lopp Sénégalais parce que tous les Sénégalais savent qu'il n'y a pas plus Sénégalais que la Casamance. quand vous avez fait des choses extraordinaires sama xol à na trop pouvez même pas savoir combien je suis ému et combien je suis satisfait de vous.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

On porte un projet pour le Sénégal on ne porte pas un projet pour Ziguinchor Voilà pour la Casamance Voilà Voilà pour le Saloum Voilà pour le Sine Voilà pour le bundou Voilà pour le Voilà pour le nangam on porte un projet pour le Sénégal et au-delà même pour l'Afrique d'accord ngeen est-ce que xam ngeen le combat final, ça se passera où Ça se passera à Dakar. Stratégie Binudef, ça nous a permis de déjouer leur plan. Ça nous a permis de gagner du temps. Et ça nous a permis de remobiliser les troupes un peu partout au Sénégal. bu du fii la mën a sotteel combat bi définitivement yéen yéen a ne góor day dëgër ñun ñëpp dañu war a ànd dëgër jublu Dakaaru dem jàkkaarloo Macky Sall et c'est pourquoi l'appel que je lance appel bi may lancé maa ngi koy lancé toute la jeunesse sénégalaise bis ni tey jeune boo xam ne gëm nga li ñuy def te jaral na soo ko mënee nañu daje di Ndakaaru que tu sois di Bawol di Waalo di Ganjol di Bundu Siin Saloum Casamance ak foo ci nekk Fuuta jeune boo xam ne gëm nga combat bi te jaral na la te nga mën ko je vous donne rendez-vous à